aja merci beaucoup ami internet comme ni ñu ko waxee rek tey bu ngeen gisee euh, toxawaayu yanji yi maanaam togaayu yanji yi tey dara waral waralu ko lu dul laa waali ak euh, waa Ramadan social laa ñu nuyuwaat la rek di la baaluwaat ak teg si di la baal ak waaw soxna si ñu ngi lay siyaar di la béggee bu baax di sant yàlla bu baax a baax baax di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suñu sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke di nuyu ñëpp nag yaay Fall comme ni ma ko waxee ak Baye Fall yëpp waaw di la siyaaraat bu baax a baax a baax a baax nag waaw. siti mooy waa seen bës xam nga sama gars yi ñoom ah, euh, sama site americain bi nu mu tëddati waaye Bespro waaw. Euh, Wasaare. ñëpp a ngi fi ah barki waaw rajo dakaar international. waaw di leen siyaar nag bu baax gis naa seen taxawaay. waaw Sénégal Buzz barke alxuraan gis naa seen taxawaay bu baax yéen foo leen ne dama leen di wëri barke Serigne Saliou di gërëm nag waa Ramadan social maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi jël nuyo bi di ko teg suma sama loxo yi waay yaay suñu yaay la te ji lépp waale bëgg waale moo tax mu demee nii. il il il il kii il de Saloum la jóge mu doon suñu yaay tey lañu am 6 mois xaw ma léegi am at suñu groupe bi léegi ñu am at mais ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax suñu yaay am nañ fi nag ay raq am nañ fi ay mag am na ñoo xam ne tamit suñu moroom jarbaat lañu mais ñun ñëpp ñoo bokk benn xol nag ànd liggéey moo waral li nga fi gis waaw. woote ñu wuy si la yombul tey nag nga woote gis ñoo xamante ne jógeekoo nañ ba Île saalum ñëw waaye ñu la jege lool te kenn gisu leen fi. waaye moom laa lay wax nii sànq man li ma jooyloo man fii laa juddoo fii laa amee jabar fii laay liggéeyee am fi famille lool bari fi famille lool man surtout la baat fàlla yàlla def na Pikine ni sax day feebar ñu ne dem lañ ngeen wooyu Bayla mooy li may wax sax dama koy confirmer rek demin wooyu Bayla aw ma million aw ma xaalis aw ma dara mais damay jël sama këll bi Bamba daan yor barke Xaadimu Rasuul dugg ci dëkk bi di màjjal parce que trois mois nit day am jalis wala mu am cancer wala leneen ak leneen ma xool encaissé ay cinq cent mille wala un million comme ni mu koy waxee rek am na suma benn xarit boo xam ne kooku ñoo fondoo un million six cent laa ko laa ko màjjalal yóbbu ko principal yàlla def lu gën am na koo xam ne yàggul ki mujj nii problème mu bëñ la woon mais dafa demoon ba sonn ñu soog ma koo wax maa ko entrée principal mu gaañu oto biñ ko yóbbu sax amuñu ko ma lijjantiwaat ko jël cabriya euh, kii bi oto yóbbu ko cees mhm. mais fii la juddoo keneen ki tamit alhamdulilah mu ngi fi am na ay jigéen mhm. am na ay jigéen bari na ay jigéen beneen bi tamit social bi ngay wax nii mooy armée Pikine bii nii man dong dama daan ñëw sax di di wax armée bi nangam fees nag nangam ñu naan léegi dof la mhm. man kase ma woo ku ñuy wax jëwriñ Aliou Cissé laay koli ñu doon cinq personnes ñu nekk ci nekk ci nekk ci may jël sama tànk balaa maa dugg sama kër trois heures di matin lay nekk dem ginnaaw raay comme waa ginnaaw raay maa ngi leen di siyaar bu baax ñoom benn association bu mag la ñoom it doole nañ ma dali foor amul ñu ma duggul ci gox ba géejawaay def benn benn benn benn benn euh, euh, s euh, kii ni ko waxee whatsapp ci ci ci sama suuf ma yokk sama armée noonu la génnee mhm. xeex mu kii du ma bàyyi ma fen jàpp nañ ñetti yoon police jàpp nañ ma ndax armeeru Pikine bi mhm. barki Serigne Touba armeeru Pikine bi boo duggee si biir morgue bi ñu ñoo ko defar musul am morgue maa ko fa tabax pompe bi ñu fay def di joxe robinet boobu pompe pousse yi ñoo fa nekk amul maire bu ko fa def nag mhm. maa ko fa def man ak ak ak collectif sama suuf ma yokk sama armeer kon social boobu armeer bi la soog a ñëw fii mais nag suma kilifa sama patron muy Waly sek moo waral lépp nag ñi ñëpp koo fi gis waali moo leen jaral lépp barki Serigne Saliou Mbacke ma ne leen nag ramadan bi nañ ko def ramadan social waaw. ñu gis waaw noonu la dompat sax ci sot la bokk boo ci bañul dara ñu gis ni pikin toll bëri loolu ay ndaanaan. ama Sène gis nañ ko ci sa ay vidéo nga wax ni invité nga ko Boy Niang Ama Baldé et cetera te gisuñu ci kenn koo xamante ni rek jugee koo nga sa biir kër ñëw fii wala nga yónnee ndaw. waaw comme niñ koy waxee rek xam nga moom baylaa baylaa pikin la depuis nongoloo ba tey. ah Zoro ma jaaga de ñëw na fi sama papa jooju gis naa ko fi ñoom Fallou Benzema ay doomu Pikine lañu. Moussa la maire Mbaye si maa ngi koy sant di gërëm moom ta bu dee bu dee ñëw na sax mbay si ak ak ak ak ak ñëw nag waa daan kontaan naa si lool mais waroon na gën a yaatu waroon na gën a yaatu comme ni nga ko waxee rek mbër yi léegi laa dégg ñu ne ma sërif bi dafa wàññeeku léegi. di ko ñaanal yàlla na suuf sedd ci koom yàlla na ko yàlla yërëm muy sëriñu Boy Niang mais amul ku ma demul amul mbër boo xam ne depuis Mbapat maa leen tëggal Mbapat ba nu ñu toll doon champion. ama bu ñëm ñëpp nag. Eumeu ñoo foondoo ñoo juddandoo benn koñ. waaw xaw ma Eumeu ba mu daree bëreel arène ba léegi maa ngi dem si làmbam di sonn si làmbam. waaw comme ni ñu koy waxee rek. Mhm. waaw sëñ c'est que damaa def lu bëri Pikine mhm. ba may am 14 ans ba ni ma toolu toll barke alxuraanu karim fi may liggéeyee sax am na ñoo xam ne 25 personnes ñii dem nañ tukki man jàngal leen liggéey ba nii ku ci tux sax mën a la demal sa yoon mhm. fii doomu Pikine nag laa la wax de mhm. kon am na loo xam ne def naa ko Pikine waxuma la social ak leneen ak leneen. dund naa ku nekk kenn musuma musuma nag c'est kenn lu bon nag lu dul lu baax laay xool ànd ak yow mais nag. gàcc ma comme niñ koy waxee rek bu ma ñëpp bàyyee na ma waali téye teel ma sama groupe bii barke alxuraanu karim waali mooy li may wax chaque jour dama ko jox sama bakkan bi sax addee na ko jël barke alxuraanu karim laa lay wax nii na ma ñëpp bàyyi waali téye ma garaawul amul problème voilà daf fekk zéro yóbbu ma ba cent voilà waali foo la mooy may li may wax gars yi ñoom ñoom Amadou ñëpp a toog ñii xam nañ lépp jiwo yaa ngi nii barki Seydina Mouhamed bugguma may sonn wala nangam ak nangam am na yenn yoo xam ne sax du waxu fii. mais ñenn ñi nga xamante ne ñëwuñu ci programme bi te te te sës ci yow est-ce que du ànd bi ngay ànd ak Wally moo leen arrangé wul peut-être. non buñ dugg ci bañ a ay faramaareen ñoom. non buñ dugg ci foofu non garaaw non lool noonu du ay ay affaire ay ànd nangam sangam danga ne kenn deful kenn dara waaye lu waaye def sa bopp. yàlla bi muy defar asamaan gi fekk fi Adama ak Awa te loolu dafa yàgg. Mm-hmm. ñun ñoo bokk xooloo gën a ndaw ci doomu aadama waaye moo ci ëpp njëriñ ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay du waay waali war a faramaareen bi du foofu de pikin la ñu wax Pikine cent cent bi yaa ngi dégg mais dafa war a gënoon waroon yaatu waa Pikine ñëpp nag laay wax dafa waroon gën a yaatu man nag buñ ma fayoon sama bor waxuma la sax groupe Ramadan social barke Seydina Muhammad ni fi nit du xaj parce que parce que ci biir lekk yi sax maanaam nañ def trois cent nangam cent parce que nee naa ñu fi ñëw ëpp nañ loolu. Mm-hmm. mais dara de lekk yi dañ koy lekk de misiwee yaa ngi ñëw dañ koy toog ñu xéwloo na ko ñu biir. sama nawle yaa ngi nii caméraman yeeg ñoom seen lekk rek la ñuy def. Mm. Ah. léegi dañ lay bàyyi rek nga joxe sa ay dernier mot. waaw. di sant yàlla bu baax rek di gërëm waat Wally sekk bu baax a baax waa Ramadan social. Mm-hmm. mooy ñii. Mm-hmm. logo yaa ngi nii. Mhm. Ramadan Total am na Kaffrine am na dakaar bu dakaar Dakar mooy bu mag bi suñu numéro nag dañ koy joxe muy numéro Bamba ak suma numéro ku koo xam ne bëgg ngaa bokk ci groupe Ramadan Social nga ñëw dugg ñun lii lañ xam xamuñu leneen ak leneen ak leneen parce que daan Social ñaan nañu yàlla ba nit di feebar sax ñu dimbali la mhm. ñu fa lañu teg suñu bët waaw waaw ay dara ne ko mu ñëw. ay ci ko ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf